Adji Sarr parce que loolu dafa mujj dal Mamour Diallo ba nga xam ne tey mënatut a siggi nga xam ne fa mu nekkoon sax xañ na ko poste léegi ñu gis Adji Rabi saar mu ne ma ngay maas maasee fa Ousmane ko di dàmpuloo ñu ne ko taxalal ñu ko wala moom mu jàpp ne Ousmane koo ko def. ñu tëkku ñu ñu ñu agsi ñu agsi fi ñu ñor. waaw léegi nag bi mu defee loolu nag mu topp coow li coow li suñ borom. ah xale bi ñëw ne da maa yàkkataan da nga maa xoqatal. lu ñettukat ba di capitaine Touré. parce que tamit fa yow egg du man yeggu fa bi nga xamee ne capitaine toure nit ki su ñëwee clamé nit bala ngay enquête kiñ clamé moom mi clamé ngay njëkk enquête ba xam li muy wax moom yanu na maanaa wala yanul maanaa ndax taxaw rek ne diwa ma nàngam bu ko diw deful doo ko sonal comme li am nii mhm. mu enquête ko ba xam ne kii day fet mu teel a wax ne kii day fen ànd ak loolu ñu daal di wiiri dem ba ci ma toppe gi moom mu ne lii dana ko yóbbu ci juge d'instruction dema dem bañ ne sax dañoo jël ay mbir ay yeneen nataal image pornographique mhm. pour bëgg ensemble rekk walla euh, ruggi xàpp sonk mooy SR pour dé euh, jàmbur bi député bi mhm. euh, loolu ngir ensemble mën koo am bokk na ci liñ leen gaaral muy ay nataal yoo xam ne ni ay image pornographique gis nga ko bi ko Cheikh Abdou Bara doon di génne ak mhm. dem lu ñaaw voilà muy lu ñaaw loo xam ne nii ànd ak loolu yëpp teewul ñu wéy ba ni mbir mi yeggee ci sëñ sàmba Sall ak coow li ni mu bare mu mujj koo mettre sous contrôle judiciaire àdduna di dox di dox bañ ne procès am na ànd ak loolu yépp mhm. tey mooy li ma doon wax rek xam nga nit ñi yenn saay sama maas gi danañ nekk ci kaw mais bokk ci coow li xam li ko waral da koo gëm mhm. da koo gën mhm. maa ngi fàttaliku sëñ Cheikh Baara Ndiaye sama xarit ba yàlla na ko yàlla génne ci jàmm nañ ci nañ àddu ci mbir moom tamit yi génnee jooy ma ne ko sëñ bi man de sa waa ji damay bañ mu nekk idiot utile mu ne ma lan ma ne ko Baye Mbaye Niass ma ne ko idiot utile mooy koo xam ne day bëgg li mu bëgg nga waxal. nga waxal ko ko waxal. mu am luy loolu ma ne ko señ bi mi xam nga seetaanoon nga théâtre jamonoy tey ba Rama am ak Lamine Ndiaye ca bu njëkkoon <laughs> mu ne ma waaw. <laughs> ma ne ko mooy fii ko fi fi ko mayee wujji su jëkkër ji nekkee wujji wi ci néeg bi rek mu ñëw di yëddu comme Lamine Ndiaye naan na ko. Mhm. daal di bàyyi ba muy xam ne mi ngi ci bitti mu ne ba noonu rek dama koy bañ dama koy bañ a yàqali nelawam ndayam lañ ma tàggi dama bëgg a bàyyi ba suba ma doog ko wax rek mu mhm. yuux waay waay génn ne lan la lan la mu ne damaa jaar nii jaar nii rek dégg ñu ne ma sa yaay dee na fekk da doon yëggu ma ne ko loolu mooy ijo utile ma ne ko Baye Mbaye Niass mhm. dañ ko utiliser pour man benn audio bi nga xam ne moom la benn juge amul benn yelleef fi romb ko mooy audio 18 mhm. bi nga xam ne aji Sarr moo ciy wax Mamour Diallo di wax ñëwoon ca jataay bu di wax ñu naan fayal kilim beeg

comme la Babacar ture doon wax daw naa naag ñu naan dawul nangam nangam. Mhm. kooku ku ñu war a gërëm la. Mhm. gis nga dossier bi bu ñu amee kuñ ci war a njëkkal capitaine Touré la. Euh, euh, mhm. Babacar Touré. Pape Alé Niang Ndeye Khady Ndiaye. Mama Ba. ak waaja Kayta ndax ñi dañ doon fanqal nit ñi musiba mi ñu naroon a dugg léegi bu fekkee ne loolu dafa am audio boobu fiite ñee daal di toog teg seen plan de com. léegi liñ bëgg mooy rendre ojo buy baax bi caduc ndaw si woo Baye Mbaye Niass damaa bëgg a mucc nangam nangam diw may laal nangam nangam ku ne mu tudd tudd Ahmed xalifa Niass tudd ci Bougane tudd ci kenn ku nekk bi ñu paree nee na la da doon kaf. kafe ay deru jàmbur ay deru jàmbur nga ne nga ne da doon kaf. léegi man Adji saar su fekkoon ne sax Ahmed Khalifa Niass ak Bougane dañoo lekk lëkk. ma joxe exemple maanaam dañoo bëgg jigéen lu ñu bëgg-bëgg jigéen danañ moytu ku mel ni Adji Sarr dèjà même bu dul mënuñ ko moytu sax moment boobu moom danañ ko moytu mhm. kon kooku bu taxawee te moom kàddoom la lay wax maa nangam te yow man mi nga xam ne man maa jàpp ne kii day fen ki ne ma Ousmane Sonko ma yakkataan day fen mhm. léegi mun kooku wax ma ci Ousmane Sonko ma ne ko ngay fen mu wax ma ci bugaan ma ne dëgg quelle contradiction man mooy li ma doon yàgg doon wax même sama xarit yi nga xam ne ay patriote lañ wala nangam nag ñu baree bare bi ma koy traité nii jubóowuñ ceeg man mm-hmm. mais xam nga man bu ñu yónnee yàgg rek nit ñi dañuy teg léegi nag nangami audio yooyu ñu naan set audio la kenn ku nekk di tas léegi bi mu baree ba mm-hmm. de léegi boo ko joxee gis te lay jafandiku bu dee gis bu ci bëgguta ne ne soxlawu ma bu doon benn ojo bee rek mm-hmm. gis bu taxaw ne duma ko dégg ñu ne la yow àtte taxulaa euh, jóg jóg dëgg taxulaa jóg mm-hmm. mais boo boolee fukki audio yëpp ne leen déglootuma nag mm-hmm. su boobaa ñee ko nangu. <laughs> Mhm. moo tax ma ne Baye Mbaye Niass MC idiot utile foofu lañ ko jàppe mhm. léegi mais ñu ñëwee ci fond man li nga xamante ne tey ci yéen ci ngeen di jëfandu moo di euh, seen coalition bi nga xamante moom ngeen teg muy ñun ñëpp euh, pour la euh, pour la candidature de Ousmane Sonko Ousmane Sonko jamono ji lan li ma doon wax ci Pastef ne ne ñoom ndax plan B du yoon parce que li nekk ci yoon Ousmane Sonko di ay procès moom munu cee mucc. déedéet lu tax nga ne mënu cee mucc. li ci nekk li déjà am at bi moo ngi fii donc su fi yemee rek. loolu loolu loolu rek. éliminé na ko déedéet wul kenn. te ah, deux ans kon nomination a tëdd ça a tëdd. waaw léegi man foofu mhm. mhm. nga ne kon na lu ci des. waaw yow des mhm. que ba léegi. ba léegi waaw bu fi man du ma wax ne booba buñ ci jógee rek kii na ko dama lay indil ci lu ci gën a yomb ci condamnation boobu. Mhm. mooy def des na xambin jukkiwuñ ko am jeex des na pourvoi en cassation ndax xaj na fi. Mhm. wala xaju fi nangam mais boobu des na. Mhm. mais mais pour waa d' accord na compte max bi la la la laaluñu ko. loolu dossier compte max bi aji saar la. waaw moom moom mu taxaw bés bésu maam Ndiaye moom dama ko tëb ndax moo ngi. encore boobu tontu naa ci. ba pare xam nga ne kon boobu ba léegi candidat la. waaw léegi ñu ñëw ci compte max da nga àtte nit compte max mooy aju féeteerlu ji wala dëddu ji maanaam koo xam ne procès sa procès mooy am ñu ne da ngaa dëddu <laughs> ñu commencé ci ndax Ousmane Sonko compte max la ba pare <laughs> xam nga foofu mooy lijjanti ne nit le compte max mooy koo xamut fu mu nekk <laughs> dane mër bu nekkee Europe sax boo mënoon a def ak waa France sax wala nangam sax mën a defi pexe mu ñëw daa war a ñëw parce que looloo tax ñuy atte atte léegi nag jëmmi compte max xam nga lu tax ñu ñu koy def compte pour iri nit maanaam dañ lay àtte mën nañ laa tëj cinq ans wala mën nañ laa tëj un an wala mën nañ laa acquitté mhm. nga daal di dum mooyu àtte bi boo dum mooyu àtte bi ñu tëj la dix ans boo bañee tëdd dix ans jël da nga ñëw mhm. léegi kon li ngay xam mooy lan moo tax ñuy teg contumace contumace mooy pour iri la pour nga mën a ñëw mhm. loolu moo waral ñu ne s'il sa constitue si il est arrêté wala il sa constitue comme prisonnier yeggul sax ci prison d'accord moo tax nga xam ne ñi doon légiférer ñoo gën a maanu ñu ku leen waxoon ne jurisprudence Ousmane Sonko bi dana am xam nga loolu mësul am mhm. maanaam koo xam ne tey mu nekk liberté conditionnelle dañu ne s'il se constitue le euh, le pen dafay anéantir dellu dellu ci situation ordinaire bi mu nekkee woon situation ordinaire su boobaa dina mën a défendre non non non situation ordinaire bi mu nekkoon mooy sous contrôle judiciaire mooy day ñibbi këram xam nga loolu dafa leer léegi ñoom moom la xam léegi yow jàpp nga ko. Mhm. ñu bëgg laa andi li caaxaan dañ koo jàpp ci li yëg leen. xam nga xam nga li ñuy wax subsidiarité xam nga nu ngeen ko man nag baatu tubaab su ma ko daggee. <laughs> Ah. sama yoon nekk ci ah, d'accord saa wolof bu jàng oh, tubaab bi mooy wax. <laughs> léegi. Mhm. dama lay wax ne xam nga maa ngi wax foofu mais bu dee États-Unis mhm. peine yi dañ koy cumuler maanaam tey. bu ci nekk ak ak lañ lay dóor. waaw kay maanaam bu doon États-Unis tey ñu ne kii dafa. acte criminel comme tey li ñuy wax crime yi ñuy toppee Ousmane Sonko bu ci nekk ne yooyu vingt ans lay jël bii vingt ans la ci jël bii quinze ans bii deux ans bi nangam mhm. nangam bii dix ans dañuy boole ñaari vingt ans dix ans trente ans quinze ans quarante cinq mhm. ans deux ans quarante sept mhm. bu mën naa dem ba cent dix neuf ans sax am na ñoo xam ne sax dañu leen tëj plus de cent ans mais par contre bu dee Sénégal ak France dañuy xool bi gën a mag ci pen yi ñu lay toppee ñu jël ko ñu daal di jël bi nga xam ne moo ci mag ëpp muy vingt ans waaye États-Unis bi nga xam dañuy cumuler lépp sax pour mu wax la ne compte max foofu dama lay yónnee ci benn euh, kii bu ñuy wax blacklist mhm. bu Redmond la toll bi muy yegg si CIA présenté wu mhm. man la Redmond ndaw si dugg ci base de données yi xool muy moom bi mhm. mu nee puzzle bi nii tell alarme ba sab la Redmond def mooy ne nii xam ne moom bu xawee yëngu léegi ñu jam jam mu def ni ñu jàpp ko ci lañ commencé nag première procès lañ ko doon def ak yëpp nga xam ne Redmond mooy ki rayoon rayoon mooy ki complot mooy ki nangam tey bu doon Ousmane sonk tey ñu ne la mooy ki nga xam ne nee nañ moo euh, moo siif moo daw moo def moo kii ca mbay maam mbay ñaa moo defaat nangam nag kon hmm. ñii kan la ñuy nax mënoo jàng ni mbir ba mu leer nàññi hmm. nga waxal ko nit ñi mu leer nàññ ba pare ngay fontoo nit ñi man ba ma déggee ci Eh, suñu yoon mu ne nul ne censé ignorer la loi. laa jóg man Saa Wolof lépp lu ma ci yitteel wala lu ma ci soxal. ma xam ko wàcce ko nag suñu làkk yi. ndax ki ngay gis mu toog ak yow nii dafa am benn application bu ñu doon wax Clubhouse dafa am ay room room lañ koy wax club bi noonu benn application la. mais dafa am ay comme WhatsApp dafa am ay room yu ci nekk xam nañ xam nañ ko yi da nekk ay room médecin yi nekk ay yu juriste nangam nangam man médecin yi dañ ma doon jël ma leen di jàngal wolof. maanaam yenn baat yu ruxte yi nga xam ne tey dañ ko bëgg a xam comme tey ñu ngi lay wax naan la lu mel ni tey ñu naan la ay rein mhm. comme insuffisance rénale rein rein ñu wax la ko ma wan la ne mooy dëmbeen ci wolof <laughs> ak yeneen ak <laughs> yi tamit mhm. loolu lañ doon ñëw di ma ko waxal man lépp loo ma ci wax bu ma xam dama naan la fexeel ba ma ba ma am ci déggin bu leer rek dinaa la ko wàcceel ci làkk wi mhm. su ma ko telee demaat ci ku ma gën a xam ma tam noonu ñu doon weccoonte ay kii xam nga xam-xam mooy loo xam ne xam nga alal da ngay jox kii ñàkk waaye xam-xam boo ko joxee yow mi ko joxee da ngay gën a xamaat loolu nag moo tax saa wolof bi ngay jàkkaarloon nii mhm. mu mën laa wax ci suñu ndeyu àtte ji mooy constitution man mhm. la cee wax li nga xam ne moom yitteel na ko mooy lii ma la wax nii gis nga tappale baaxut yow nee nañ la bu fekkee ne dafa constitué wu wala ngeen jàpp ko nga daal di ñëw ne du moom léegi yow euh, Bilal déedéet euh, Jamil Sané Jamil Sané jàppuñ ko woon ci benn nàngam beneen dossier fekkaat ko fi. waaw ñaari ñu tegale. waa yi ñu tegale. Mhm. lu tax Ousmane ko doon ñaari nit te Jamil Sané doon kenn nit foofu laay laaj. gis nga yabaate ñoom même ñoom. mais mais dossiers yi mais dossiers yi bokkul aussi. dossier dossier mais teewul peut-être que xaw nañ moom laa lay wax xool dafa bari loo xam ne gis nga ñii danga nga leen a dafa mel da nga leen a jox ak dumbul dumbul mooy uh, bobine wala pilote. Mhm. mel nii golo goo jox ak dumbul rek. muy wax ba yeew boppam uh-huh. loolu mooy wax ji maam dañuy ñëw ba yeesa damay misaal nag wax mu ne ay golo lañ wala nangam man uh-huh. damay damay misaal uh-huh. rek nag ci njekk voilà loolu laay expliquer quoi maam yi la tegal nii comme tey par exemple benn ministre bu la wax ne la compte max bokkul lii mais kooku waxul lu dul dëgg même bu fekkee ne professeur de droit la bu jàngalee droit parce que moom nit ñee moom loolu xanaa parce que moom nit ñee jàngandoo ak ñum jàngal ne fi da leen a mën a lu dul li nga xam ne mooy dëgg moom kay nañ ne waa ji lañ bëggoon ba pare li gën a doy waar nga ne maanaam boole ci sàcc ne dafa sàcc. sàcc gi téléphone lay la woon rek pour ñu mën a jot ci moom. xam nga loolu mooy maa tey maanaam kii daal sàcc gi dama ko wax pour mën a jot ci moom. ba pare dugalaat ci mbir yi ne moo wax ne ku dee sa yaay juraat te xam nga ne li ngay wax noonu du dëgg waxut wala waxewu ko noonu. Uh-huh. Ousmane Sonko da dañuy wax xale yi moo tax xale yaa ngi naan leen ku dee sa way jur juraat donte du ci am boobu ko dindi na loolu sax loolu mooy sax leen wax loolu ci wolof. Uh-huh. nga ñëwati indiwaat yeneen du boo ma ci indil mais mais essayé mais essayé yaa ngi yaa ngi rentré dans les ci détails yi nga xam ne mun na accuser Ousmane Sonko